quoi bebek. Mana mau quoi Halo bebe, mwanangu mnazi, sio namna ya ci jàmm yow xanaa danga changé numéro dinaa la léegi de jàmm na bàyyi noonu ah danga ma yenn si tey ay yow loolu neex na de lu mu yàgg xaar noonu yow ñëwal boo ñëwee naa defal lu baax yu amul fenn pour man rek waaw baax na ci kanam mu benn problème yow waaw ah, ok baax それが出たいコピーが出なくたいやらされてるねやんじゃんまえいたのはなんだナイスあいねばい ah gis nga de xam nga rek yow comme que ngay bëgg moom bi ngay wër moo ma defal lii quoi xam nga yi sama téer moom ko ñawal quoi sama téer bi fenn nekk Dakar waaw yow du wax dara loo bëgg moom laay def bëgg moom laay def ah ok waaw ma toog ah bàyyi gis nga de ah maa ngi yow ba dérangé ma la ay nice ci loo nekk nga ah, tey sama tëyër moom fëlal bi waa Abdouraas Abdouraas mi ngi nekk ah, moom mooy ñëwal nice Abdouraas daal nice, yóbbu mu dóor nice ah. dara ah, xam nga yow xam nga yow yi nga bëgg quoi xam nga yow loo bëggee dama ci sama bébé sama oui yaay sama amour di sama lépp. xam nga mënoo mutoon bàyyi damay xaru nga. xam nga loolu nga tey jii fi nii. man tur beeg yëpp yaa gis kuréel gi nii. Ah. bi sama benn boy ma ko def. Ah, seer de. kuréel ay trente mille noonu. Ah. trente mille quarante mille. man moom gars yi samay gars yi lañ moo tax ñu ma ah. yi taxawal fii ci mbedd yi nii. quarante mille lañ ma koy jaay. ah ci loo nekk nag. amul jàmm baax. waaw ah, toogal nii ah, lan maa xaw a sori. non toogal nii rek. xaw la xaw sori baax. bu mel ne maa xaw a rute. amul ay kerte yi de. tey moom mais ana ana maa ma la kon bàyyi ma koy fayal baax. faral ma bu baax. maa bu neex. Mm. xam nga loolu. moom la ñëpp di yow moom ah. xam yow moom ñàkk laa am wóor. loolu dama koy waaye sama lépp. ah oui tey toggal ma maafa bu neex. moom maafa moom mooy sama plat préféré quoi. Mm. moom laay wër. xam nga tey jii li ma sant nii yëpp yaa ko waral. ma ne boo amutoon dama lay kere nii. ñaw bi nii ñaw mi waaj dama ko ñaw nii dafa rafet. ñaw oh, bi dafa rafet ni ko dóoree nii. dama cee fay xaas bi tàll pour man. Abdoulaye dafa mën a waaye dafa mën a ñaw de. ñaw la man. sañse nga trop. waaye dafa mën a ñaw de. Abdoulaye dama koy yóbbu. Abdoulaye bul wax dara Abdoulaye boo fa bëggee dem heure boo fa bëggee dem dama la fay yóbbu. waaw bul wax dara mu ñawal la waaye mu ñawal la xaaral naa jël benn benn kii benn kese ne. xam si ni maa ngi ñëw ñëwale quoi. njege mu ñawal ma ko quoi. lox dara yow lox dara may ñëw ci koñ bi rek maa ngi romb ay xale jigéen ñi may jéem a topp di ma sonal ma man leen yéen man xool ma leen man nday nday laa bëgg quoi bëgg ma leen nday laa bëgg oui. sama waay ji sama waay ji tey def nga ma loo xam ne. Eh, eh, ak di sama waay. noo déet. ah, ah naa la soxna si. fu ñu ne yaa ngi si jàmm. Ah, wala lu ma la waxoon saa waay. ginaar ginaar yan ginaar yan ginaar. waay saa waay bul doof xamal li ma la wax. sëñ bi. waa ju waa jugal yow 10 heures naa la waxoon nga ne ma balaa 9 ma indi la ko 12 heures jot na. waay ginaar gi ginaar damay non déet saa waay dugal rek dugal dugal ku àbb da ngay delloo yow maa ngi la al sama yéene heure sangam damay dem sëñ bi sumin ah sumin damay dem man damaa yàkkamti yow bu ko def nii doo ko bàyyi ba. soxna si noppi. Ah, sumir rek sa waay sa waay damay dem non non waaye sumir rek sumir indi sama kurus. xam nga moom bu ñëwee boo bu non sumir sumir rek sa waay ba ma waxoon lii du ma du ma la ko àll ndax yow bi may àll yére bi da nga ne ma xale bi ku baax la bu ma murite wala xale bi lim sol kii murite na sol lii sumir lii. waaw saa yi taxaw mox la taxaw mox la da ngay taxaw mox la. waaw sumir man aw ma taaw bu may perte ah war na taxaw mox la non sumir rek ku baax ah sumir lii. waaw sa traitement bu xasaw bi jeexul soxlawu ma ko te lii sa traitement bi. sa booy nii lañ mel quoi samay booy la ñoom ñëpp. waaw baax na samay ah, booy lañ quoi booy. non non non non may naa la man rek jëlal yëre yëre yu ñaaw yi. waaw baax na waaw lu la doy yi baax na simin ah, lii rek ngeen di def. Ah, waaw baax na. ma xamal la ñaanal soxna si ñii nii lay def di la gëmloo loo xamante ne si gëmuñu ko naa la am na xaalis am na naa amuñu dara di àbb rek kii bindoo ni koo fekk koo koo xool yaakaar. waaw ah, booy xoolal booy dañ jaar nangu sa yére demal. montre bi yàlla moom jëlal garaaw nangu sa yére demal daal mais yére bi moom waaw demal rek waaw si xel baax na ñooñu def quoi dañoo con quoi bu ñëwee fekk ma ma sol sama yére ñu koy nangu nii quoi xam nga man yére bi man maa ko moom yëri bi maa ko moom xam nga man ay yére yére bi Dubaay laa ko du neexal Abdouraas ko ñawal. yow de xaw ma Abdouraas xaw ma Abdou Ndiaye mais yaa du la sax. waaw ah, yëre foofu wantaay damaa tàng trop. kër yu ko fi. yow de lii añ boo booy kii bu ñu la tax nga bëgg yàq sama diggante. gis nga mooy loolu quoi dafa ñëw fii di bi may kuy ñaan dina def ni ñëw simile fii sa ay kanamu noonu ñëpp di la seetaan. ah oui ma yaa ci mën a jàpp quoi ama booy. mooy loolu ma see jàpp mënu ma see jàpp ma doon wax lépp si man kay soog a yem te xam nga nag lan laa bëgg si ma jug yéen sama kër. yow ndax man bii gàcce man xaju ma si. joxu ma ngeen jug yéen. non loolu loolu xarom ma gën a loolu loolu. non sama maaf bi ma commandé peut être du ma ko lekk. yow maaf bi ah léegi maaf bi ah, maaf bi nag. yow dugal mën ngaa ji wala mënoo ji <laughs>